musiba mo xamne mo feug ci ci diine ji ndeysaan sunu ñooñ am ci ñukay dund xamna wax ka tay waye nak bokul ak wax sarti tabaski tay ak num xar wara mel dede lola tay amana ba wax ka meuna indi aw dafa am lo xamne wax ka mom tay ak benen yoon ci yam moy ñi amul tabaski wala ñi wote woo amuñ tabaski di dem ci banque yi di rep riba pour tabaski a'udhu billahi minash shaitani rajim lolou ku ko dégg war nga muslu lu tolni jaamu yàlla ngay seur xël ci bir moy yàlla gu tol nonu mané julit ñi nañ xolaat seen bop ta moytu ñi fowe diine mo xam bank la mo xam benn nit la mo xam mbootaay bu mu mëna doon nga ne da ngay jaamu yàlla di sellal jaamu ga amo loy def ludul dul sa bop ci meram yàlla musiba mo xamee ne yàlla subhanahu wa taala li la ci wax ayyuha alladhina amanu آمنوا wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلموا لا تظلمون ولا تظلمون kon يالا نين يين وي گم يي نڭين na يالا ragal باي ليغا خامني lii سين لوخو سي ربا نديم اي جولي نڭين nee ne bu ngeen ko deful nag waa jël leen xare yàlla ak yàlla ak yonenta ba jàkkaarloog yàlla ak yonenta ba mën a jàlla ak jàkkaarloog yonent yàlla ak yonenta ci xare nee ne bu ngeen tuubee nag seen boppi alal yéen a ko moom ku leble woon cent mille francs yaa moom sa cent mille francs lañ ca teg lépp sànni delloo moomoo wala nga jox ko ñuy war a lekk mbedd kon nag bul dugg ci jëflante riba duñ leen tooñ duñ la xañ sa bopp alal waaye itam riba biñ ci war a def duñ la ko jox nee na itam foofu dafa jar a xool ñun nañ dimbalante ci sunu biir ki amul buñ ko mënul may nañ ko lebal bor bu amul riba ndéem dane day leb te leb boobu yoon tegu kaka sax ndax fuqaha yi kay wax sax ñoom dañu ca teg ne ndéem am na lu mu fay boo amul loo faye moytul yooyu même bor bu amul riba sax kenn tegu la ka ndax sanga bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam dégg nga mu wax ne bii maa ngi ko rendil képp koo xamee ne tabaskiwul ci sama xeet beneen riwaaye man ak ku tabaskiwul sama xeet loola bu la doyul ah nga jéem a seet lu lew waaye bari na léegi ci Sénégal gi noonu la amee ci Maroc gële moom laa fi ma a tudd ci réew naar mujj jege li xew fii moo fa xewoon waaye ba tey mu nga faat yaakaar naa bu ma juumul seeni ulama yépp daanaka daje nañu bind seen fatwa araamal loolu ci jullit ñi ndax sunuy aada dem na ba not diine ji ba kenn xamatul tabaski ana cosaan la lan la yàlla nekkatu sax waaye mën nañoo xam loolu sax waaye di dimmandikoo lu araam ngir jaamu yàlla loolu mooy li tumuranke moom la xel mënul nangu te julit ña ca nekk nañu déglu wax ji yàlla ne bu ngeen bàyyi wul na ngeen waajal xareek man ak sama yonent te dégg nga li mu wax fa man jaahu mawidatu min rabbi ginnaaw ba mu waxee alladina yakuluuna riba la yaqumuna illa kama yaquumu alladi yataxabatu shaytanu min almas ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا ان فمن riba موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عادى لن لا تتك فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم نيني ني لك ربا تفو ديغ لك ربا كي كاي جوخ موغي تي بير ندا كي كاي لك مانوكو لك تا جوخون كوكو نيني بونيي جوك تي سيني باميل دانيي ملني دانيو امي سديم تي ني لك اندي موي دانيو يامالي ربا اك بنفيس موك نجاي موم لانيو يامالي waaw kon nag képp koo xam ne lii may wax yàllaay wax de nee na képp koo xam ne waaraatew yàlla dugg na ci sa noppa bi nga bàyyi nee na li wees woon jégal naa la ko yaa moom nee na ginnaaw waaraate wa ay boo ca delluwaat ne na ñooñu ñooy ñoñ sawar dinañ fa yàgg lool ndéem ay jullit la kon nag yaakaar naa ne musiba la lii ñuy gis ay jullit di ko def ngir jema a sàkku ngërëmal mi def te deg ngeen yàlla subhanahu wa taala mu wax ne wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdu in kanu muminin kuy ut koy geureum lo ak di sàkku ngërëmam yàlla ak yonenta ba ci gëna a kon nak meram yàlla fu mu nek dawal borom la xadar yu wax na ne wala yatlubu rida al maxluqina bi sukhti al khaliq mukallaf warul sàkku geureumal mindeef ak jema beugal mindeef ci lo xamne day andak àndaat dem yàlla ak meram kon li ñuy bégale suñuy soxna walla ngir daw coowal koñ bi coowal kër gi coowal xale yi ci mbedd mi am jot kon loola ñuy daw bu ñu jaralee nag ñu daaneel sunu bopp ci bàkkaar boo xam ne yàlla déclaré la ci guerre kon amuñum xel ñun kon de ñun amuñum xel surtout ngay mel ni kuy ñaawal diine te yàlla wax nañu ne yéen way gëm yi moytu leen a toppa ñi nga xamee ne seen diine ji ay caaxaan lañu ko jàppe ak am po bu leen leen def ay féete luñ leen oo ngeen uyuñu ngeen uy si leen ci ñi nga xam ne joxoon nañ leen téere démb ñu wàcc yoonu yahud ak nasaraan nee na nag ragal leen yàlla kon nag suñu borom subhanahu wa taala tere nañu gaa ñi la ñuy nas fa ñu koy nase yàlla du ci bokk kon ñu la koy jox war ngaa xoolaat liñ lay jox lan la ak yombal la de am na ñoo xam ne ndeysaan ñu nga ca wàkkiilu yeneen kay la ñuy toppatoo ji waaye jàpp nañ ne moom tabaski bu jotee rek ma dem ñu lebal lolo tax keur yoyu di leble lu xaraam gis nga seeni publicité fune dañ la ci ombu yomba lol ngir lëntal sa diine ak sankal yàlla ken du ko jaamoo ak moy ak moy sori na yàlla yàlla sori na ak moy bés ni ki arafa ci la sanga bi taxawon ci xutbaam ba matale ba démb mu daldi wax ak dom aadama yi wax ak julit ñi mu daldi wax ne inna amwa inna dimaakum wa amwalakum si benen riwaya wa aradakum حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع كلا بني وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه كلها موضوع فإنه كله موضوع نيني والله يسخد بامبا nga xam ne ma yowmal xiyaam li muy wax du dagan mukk bul déglu benn yoon ku la naan ah waaye yéen da ngeen compliqué ndax lii bokk na ci suñu dund kenn mënatu koo moytu auzu billah ku yóbbu musulu yàlla ci wax jooju ndax ka kay wax loolu wax ja jël nañ malaaka yi jël nañ ko yàlla enregistré nag dina dem waxaat ka ca kanamu yàlla ginnaaw bi yàlla wax ak moom ci aaya yii dégg ngeen li ñu wax ah bu kenn wax loolu bégg bu dégg bu kenn déglu nan la nit ñi di dunde te aajoo ñu loolu am na ñoo xam ne ñu ngi dunde dunde gu métti te xam ngeen ne lu mel ni banque du jëflanteeg koo xam ne amul dara ñooñu amul dara nuñ fi tudde téeméeri at te xamuñu fu yoonu paño yi lebalee nekk nañu ragalaat yàlla dellu si moom te wàkkiilu ci moom te xam ne benn bés bi jaru ko amul nag lu ñu naa darura muy cas de force majeure amu fi kenn waxul ne boo taw si baski wul sa bakken da ciy des kenn waxul ne boo tabaskiwul ak laago dala ciy topp kenn masu kaa wax ku boo tabaskiwul sànku nga déedéet ad daruraat tuhibu tubiixul maxzuraat ba ñu koy wax maanaam lu mënul ñàkk di cas de force majeure boo demee ba sës ba nga xam ne pexe amul dee mbaa laago laago moo fi des aha bu boobaa ñu daganalal la lu tolloog la lay teggil loola yaa ngi dégg la yàlla di araamal ad daruratu tuqaddar bi qadriha dañ koy yamale fa mu yem lala teggil loola waaye nag dafay fekk lala dal wala la ngay ragal mu dal la moo gën a rëy li ñu la doon tere waaye seetal ndax coowal nit ñi ngay daw moo gën a rëy daanu ci riba déedéet li ñu la doon tere moo gën a rëy li ngay daw looloo tax dañu ne bu boobaa règle bi kenn du ko appliquer waaw pour ñu appliquer an takuna daruratu azama min al mahzur amma in kana al mahzura azama min ad darura fala darurata tubiha al mahzur bu fekkee ne li ngay daw moo gën a rëy la lay tere bu boobaa demal si li ñu lay tere dindi sak lor lu tolloog lañ la ca jox waaye nag bu fekkee ne lañ lay tere moo gën a rëy li ngay daw ñàkk ki lan lay lay wàññi dara bu la wàññi dara waaw kon nag la nga jëm waaye riba dina la wàññi dara lu tax dina la wàññi dara subha sayyidina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ijtani bu sabal mubiqaat moytu leen juróom-ñaari bàkkaar yi nga xamee ne dafay alak doomu aadama bi mu waññaale ca riba juróom-ñaar la damay tënk waxtu wi mu dal di wax ne ba tey laana allahu aakala riba wa muukilahu wa shahidayhi wa kaatibahu yàlla rëbb na kiy lekk riba ak ki ka kay jox te loolu mën nañ koo xam jël ko misaal dam dorog tubaab yi li ñuy doy waar doy waar seen loi yooyu génn sharia tax ñoom bu ñuy jàpp du ñu jàpp ki dorog wa kere kese kese waaye kaka jox dorog ba nag moo tax ñu jàpp jaaykatu dorog bi te moom dorogewul sax léeg-léeg waaye moom moo ci dimbalante te suñu borom dafa wax ne wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan kon nag la mu wax ci bisab arafa dafa wax ne seeni deret seeni alal seeni der araam na seen diggante ni mu araame si suñu bés bi ci weer wi ci barab bi ba yowmal xiyaam mu dal di wax ne mbooleem lu bokkoon ci ak ceddo neenal naa ko teg naa ko sama ndëggul tànkal yi ba mu ñëwee ci riba dafa wax ne lépp loo xam ne mooy riba ak ceddo lebal la benn nga fay ma ñaar wala lebal la fukk nga bay fa fukk ak nangam mu ne loolu lépp neenaal naa ko teg naa ko sama ndëggul tànk te bi may tàmbalee mooy suñu bos xoolal yoneen bi ak ni mu oyofe moom du diflante riba de waaye ci fameem la la la mbir ma am wa anzir asiratakal aqrabin booy xuppe di waare tàmbaleel ci say mbokk yi la ci gëñ mu ne mooy suñu ribaab ribaab abbas mooy bàyyi tëxam xam ngeen ko mu ne ku fi moom lépp neenal naa ko ku fi abbas lebaloon fukk teg si dara lim ci tegoon jël te te nga delloo ko boppu alalam delloo ko boppu alalam kon nag mu ne lépp luy riba farna ko ba yawmal khiyam kep ku ko andi tanga xamne lolou ci loolu si ceddo la bok kep ku ko andi wat ci dinem nak ak noo ko andi waté bu la yabo xamne dugalat nga ak ceddo ci bir dinem kon nak nanu ko moytu bu baax mbokki julit ñi ta lolou di ko dugal ci jaamu yàlla moy ñaawal diine ak yëjji diine sama borom lak subhanahu wa taala limu wax leer bim neena yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqaat yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqa yàlla mooy mabba riba riba amul barke looloo tax bori riba yi ngay gis yépp mu ngi fitnaal seeni borom topp leen war ci seen kaw di leen mbitital ñuy nëbbu di jooy ba kër ñuy sësir seeni bagaas loolu jër naa muslu kon nag yàlla nañu ci yàlla musal looluy dugg si suñu diine kazalika naka noonu maysir moo di loterie yi ngay gis ak aha tirage yek yu mel nonu ñu lay taaralal xéetu routeur yëpp ci télévision bi yëpp xaram xar yoy ñu lay gënal ci loterie bu ka jege bo ka jégé bo ka jégé amo tabaski ndax teyul inna allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib ak lu ni niroog yooyu yépp nak bul ci jege dara nañ koy publicité la muy neex neex neex bu ci uyu bu ci jigéñ bu ci laal da nga xamné yàlla ku tey la lu tey rek lay nangu kazalika ay bukkek yenen xet yep tapale yoyu yep bu ci julli dugg rawati ko diko duggal ci biir dina yàlla gi naaw bi ko ci borom jële maa ngi tëje li yàlla tëje aayay riba te dégg ngeen ci maysir يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام rijsun min amali الشيطان فاجتنبوه laallakum تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون yéen way gëm yi sàngara ak loterie yi ngay gis muy kartaak wuuri noo ko mën a tudde waaw wal ansaab xàmba yeeg sampa yaak xërëm ya wal azlaamu gisaanee pittaaw yaak bantay ñuy sampaak rëddee ñuy rëdd sa suuf yooyu yëpp yàlla nee na rijsun nee na sobe la nee na min amali seytaan xanaa bu ko waxee nga war a daw ci jëfi seytaane la koo gis muy dugg si loterie mu ngi jëf jëfi seytaane nee na bàyyi leen ko ndaxte ndax ëllëg bu ngeen ñëwee ca man texe nee na seytaane dafa bëgg a doxale nooneel seen diggante ak mbañeel ba noppi dox seen diggante ak tudde yàlla ak fàttale ko dox dox seen diggante ak julli mu ne ndax bàyyi ngeen ah ñu de bàyyi mu ne ndax bàyyi ngeen déedéet gaañaa ngi di si utam xaram tabaski auzu billahi mina sheytaani rajim kon la ñuy tëje mooy la mu tëje ay riba wattaqu yawman turjauna fiihi ila allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat aha wantum laa tuzlam yàlla nee ne na ngeen ragal na ngeen ragal na ngeen ragal bés bi nga xam ne ci lañu leen di yeew ngeen ne ngod ñu sang leen sang leen jullee leen gas pax mu xóot bu lëndëm wu raglu dugal la fa kenn du dugg البتكو جيل سوف دب تكا سي سكاو البتكو باي لا فا اي بوبو تخواي يالا نين ماغي لين كاي فاتال غيناو بيما لين واري سي ريبا اك لينين لومو مانا دون ماغي لين دي فاتال كو بوس بوبو مجي سينا فوند تا دوما توغن كين كو في انديك توغن يا توغن سا بوب لولو تخ موني يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد yéen way gëm yi ragal leen yàlla ku ci nekk la seetlu li muy jiital si bàmmeelam na seetlu li muy jiital si ëllëgam